Eh, eh, eh, gis nañu ayul parce que la ñëwal nii taxawal nii. mbir mi daal xaar nañ la suba ba léegi taxaw nañ ba sonn foo newoon samay soxla. nga say soxla yëpp nar a yu jubadi rek mooy mbir mi. Hmm. xam nga lan la calculer nañ maa ngi ngi bi xaalis bi war na toll ci un million six cent mille. Hmm, un million yaa ngi dégg mbir yi daa war a leer na génn loolu daal mbir bi. Euh, euh, Cheikh yëf yi nee na kat ni jon. abi fan ni nga def ci sama kër gi te musuma ko fee dégg mësu fee am nga ni jak sa rak ji nga bokal nday ak bay ngeen di ñaar ni bët kenn raxu len nga di ko jiñ sacc jappo ko fekkoo ko mu koy jël ñaaw ñort dong tax tax nga jiñ ko ko pour lan ak foko tek yaay mbay daf ma bet yow ya fi nek man mbay moo ñu rax sam papa nekku fi ñing ngi nag tonton ñu ngi amul accès sama néeg yaay du ubbi sama batant difa jël xaalis nañ waxante deug mbay moo ñu rax sama xaalis bu fi joggé loxo ko fa jëlé digënté bëtt ak nopp sama xaalis dem kan la koy jiñ ku dul mbay ah, en sec gisante nak yoro ci rew dental ñu ñaari nak ñaari nak mhm. sek décantel situation bi ñu régler mbiru tam xarit nak sek nak yoy nak sek nak mo gën dé ñew na ci kër ah. nga sa jabar ñew nga taf tafé ñu ah, li jënd bi mo gën yeen li ngeen ma fi dajalé waaw leneen seen woote bépp lii la. waaw. waaw ñàkk fayda. ah. su xamoon lii xam nga du ma leen wuyu kat. Cheikh looy yow un million six cent nga yor suñu xaalis nga yor de. ah nga naan ñàkk fayda. ah suñu xaalis nga yor bu ñu fontoo. ñu fontoo de da ngay génne xaalis ba fii léegi. ana bi. <laughs> ana xaalis waaw. ana xaalis bi ngeen dégg dégg. waaw. ay mingi. lan la faalewu leen xaalis bi lekk naa ko. dama koo féete fu nekk am na xaalis yoo xam ne dangay day génn ne day lijjanti du am dara ñëw fëgg ma sama biir ma yëkkati ko ndànk jox ko amul lu ma dul sekk ak moom loo xam ne ci sutura lay doon diggante mag ak rak mbay di ma sañ a def lii du xaalis bi moo ma metti acte bi moo ma metti taxaw fii di ma tenir tête di ma romb tribord babord di def ay yëfam nga di ko gis teg ci sa tànk loolu moo ma naqari loolu moo la woon ni jëlu ko xanaa bu ko jëloon laa yaakaar ni ak woo naa ko man wax diggante ndey ak doom ak gor nee na ma yaay jëluma ko li ma wax nag ci laa mën a jàpp ba keroog may gis leneen dinaa ko woon nag mu jéggul la bu ñëwee taxaw fii ni la jéggal ma na nga ko jéggal ci xol bu sedd guy ndax yéen a bokk ndey ak bàyyi. non bàyyi caaxaan un million six cent nga lekk ko xaalisu mbooloo. ba lekk naa xaalis bi lekk naa lépp man ni defal ne waxal waxi nit laa lay wax nii. lekk naa ko te gën tam xarit ñu Eh, loolu day yomb ñu ngi defal ndànk jekk xaalis bi duñ ko génne wala man lekk la yow man maa lay lekk sa xar mi la léegi eh, ñu ngi defal ndànk te suy sekk suñu xaalis nga ni lan nee na kenn du ko réglé nii man maa lay coob man maa lay coob sa xar mi la man sekk uy ma defal ndànk ñu ngi bàyyi bàyyi bàyyi du nii teel nga xeex bàyyi xoolal bàyyi kenn du ko réglé kenn du ko réglé nii maa la gën a bandi de billaahi maa la gën ma ku ne xam na ma woon ñun ñëpp màggatum peegar bu mag mbay waaw. kaay yow. waaw yaay. ñëwal wuy si ma nga naa ma waaw yaay. cante xaw ma sant xaw ma jàmm sant déglu fii li ma lay wax waxtaan naa sama ji ba mu ne jéggal na la. jox ko loxo yëf mbir mi jeex. abi yaay man ma la dama koy baal de. yaay mbay mi valeur de confiance la duma ko bal dégg nga yaay dégg nga li mi may waxat kii duma ko wolu ba muk man waxuma la lol ah abi ko ñoo man ngay toroxal yow ak li ma waxanteeg fii yow yeb ma wax sama wax nga tek ko ba mu set boye bo xam nak man fi li ma fi wax moy am dan ni go moy tak geño waaye fii sër la maa koy woddoo takk ko ba mu dëgër raccantal pour en cas maa ngi dem maa ngi ñëw dinaa fekk sama kër jàmm ndax jàmm laa fi bëgg ci jàmm laa leen jur ci laa leen yar nga damaa bëgg ngeen may ma man ba ma wax a yéen ay mag lañu nañu waxtaan li ñuy waxtaan dindi sa lii daal da nga mer. yaa ngi kii ah ba takku mel ni jigéen ñi am doom ni ba ko ba ma ko waxatee. tam xarit ñëw na ba pare nañ leen def fii mag yow it lan la. ba parce que ki dañoo yëpp waaye. waaw waral xolof xolofam gii. waaw moom xam na xam mi kër ga la ñëw. ca saal ba man moom yàlla. mu abbu ma deux cent mille. décharge fi nag. moom mi na leer nañ décharge yaa ngi fi mi moo tax muy xëlëf xëlëfi nii ah. jublu yow yow deux cent mille ndeke lem nga ci diggante dimba kii mooy dimbalee la jaale la. yow fekk yow fekk deux cent. ah deux cent mille. moom nga lépp dafa def. yow sekk 200 millions yi waxoo ma woon ak ak ak ak kees gi kooku sa xaalisu bopp la waxoo yow yéen daal man daal maa dee daal toog seen ginnaaw di kéen kéen yi man maa dee. yow Mbaye su ma maslaaweeg yow ci biir kër gi sama yaay mii di kilifa teg xaw ma nan laa koy def moo tax waaye sama xol bi ni nga ko def maslaa rek laay def ak yow ndax moom pour sauver l'honneur nag ndax bugguma dara lu ko naqari tooñ nga ma ba ci kanamu yàlla mbay continuer ci lancé bi di nga gis résultat fii ñëpp dee kon mais ko dee ba da tëj sa làmmiñ wi yow kenn da laa rawul. kan kenn raw la. ci la ñu ngi kii. waaw ñëw na kër ga. moom 400000 la ma ab dem takk ca ñaareel nag. Eh, looloo jiitu de. looloo jiitu tax takk ca ñaareel. yéen ñaar ñëpp na leen leen décharge yaa ngi fi man nag coow li mënu ko waxtaan leen seen biir li ci des man lekk naa ko. waaw mais yow. mais eh, Seck loolu moo jiitu yow it. Seck looloo jiitu takk kii. yow yow bakkoon yow. xoolal wuy ma. fi mu ne nii loolu lu ñuy lijjanti di waxaat leb nga kii leb na yem kaay it dafa am beneen problème nag kaay kaay lii dañ koy waxtaane xët-xët du ko faj. yow doomu raam yow yaa doomu raam dëgg bu waaw baax nañ dem. yow yow mi doon jaam nañ dem rek kaay. yow yow teel a tër ko yow. xam ni nañ dem rek.

légui loolu la bëgg nga taxaw ci ñu régler nu ma démé ak ban lay. loolu mënuma cee def mënuma cee wax te compensation wu leen li ma jël il faut nga jox ma quatre cent francs ndax ñu mën a tolloo. waaw yow xana mu mën a lijjanti sa problème yi ak sa soxna. yow xanaa xamoo Fambe li ma ci tax ma dugg Fambe ay millions la yor ay millions la yor li dul jeex laa lay wax ni waaw moom la yor mais loolu du benn problème pour compenser yow lii nga leb ci kees gi mën naa régler. yaa ngi mën naa koo régler maa la wax loolu 400000 sax laa lay jox. ma jox 400000. mooy yow yow daal fexeel nu ma demee fee ah. man faale ma bintam bu ko maa koy angu man. billaay maa koy angu maa koy res man guerrier bi man man faale ma ma binta. fee neexoon na de. mais sama 400000 de. moo yow dama dem nañ dem. sama 400000 de. ba yow yow dama avance laa